ak ni ma yàlla booleek Macky Sall képp ku la wax ne xalaat na ne xam na maam Diop la doon tànn comme président de l'Assemblée nationale day wax lu ko neex en commençant te damay wax les choses telles sont du ma wéete yow ma ko xam naa ko kenn xamu comme ça que fonctionne président kenn. d'accord alors bul ko dagg bul ko dagg bul ko dagg donc avec ça. Euh, euh, euh, kenn xamul ne ne Mame Diop moo doon nekk président de l'Assemblée nationale Mimi comme. xalaatoon na ne moom mooy tête de liste dans sa tête warul mu ne imaginer wu et ils ont des ils ont des sondages xam nga élection yi législatives yi ñu jàllee volonté mbir suñu boroom la kenn mënu ci dara mais c'était trop favorable pour nous on ne pouvait pas imaginer on perd xalaatu loolu des départements comme Goudomp y a été deux différence de 200 voix c'est comme ça nag que fonctionne yàlla moom mooy ay mbiram pour nga xam ne ne euh, munoo wax Macky Sall ci yenn yi ci wàllu politique différence de 200 voix bu doon koo xam ne bëgg naa jalgati lu yomb lay doon mais c'était pas son intention on va dans les urnes. mais mais mais ba ci sa biir wax dangay ngay crédité quelque part li Aminata Touré wax xam nga lu tax. Ah ah. yow nee nga Aminata Touré bokk na ci ñu doon defendre deuxième. quinquennat bi waaw ah, bëgg na ko mais yéen ba ko Aminata Touré ba ko Aminata di wax. waaw xamoon ngeen ne bu jotee ci li muy yootu tamit du leen jàppale ci deuxième. quinquennat bi donc ça revient xam nga Mimi wala xamoo Mimi wala da koy ci gis nii rek. mënuma ne xam naa ko de. kon xamoo ko élément de gauche la ils sont très forts en politique. tactique bi mu doon def yëpp pour jot affaire mais li mu doon wax mënuma juger ne ak li position am tey bu demoon assemblée bu jotoon assemblée nationale position ba lay jël man mënuma ko wax parce que mënuma wax li indi ma xamul te damay bëgg eet wax loo xam ne ni ñor na ma leer na ma. ëllëg du ma ko lay ak sama borom xam naa ne wax na ko la chance du président ba tey kenn ku nekk si ñun ñun mënu laa wax ne ne d'accord na walla lii la wax wala leneen c'est faux c'est archi faux saa yu waxee ci loolu deuxième quinquennat wala leneen président xool feneen wala bind feneen bàyyi ko ak xalaatam su ko ci tontu parce que président buy def dara du noonu nga ko ko koy jàppee te ñun ñii APR am dañu am décision ci APR c'est pas seulement la décision de Macky Sall un problème de candidature. d'accord on a des décisions. on est on n'est pas membre du secrétariat pour rien. d'accord a un gouvernement de l'APR quand même. on on on doit décider. ñun ñooy jël suñu position bopp. ça veut dire que mën ngeen porter candidature Macky ne ko demal. Eh, loolu dafa dafa c'est que ma ne ma ne on connaît très bien dans nous kan moo ku ñu tey porte toll candidat am tey ku waaw léegi wax ba mu waxoon nag wax ba mu waxoon ma ne moom moo xam yi mu waxoon loolu moom la incarné man tudduma Macky far ba moom laa tudd Macky Sall moo xam lan la waxoon moo xam lan la doon défendre mais nous notre position dans parti dans cette coalition et restera la même. xanaa bu muy wax loolu. laaju leen seen xalaat yéen. xam nga Amadou xalaat ngay yor sa jabar sa jabar yor beneen xalaat te yéen a gën a jàpp yéen a gën a jege. article 27 bi nag. Hmm? damaa xam luy article 27. <laughs> donc yow daal loolu sa yoon nekk si non dama ko parole Macky Sall. non article 27 wax dëgg la non bàyyi mu wax ma li may posé xam nga man. article 27 aw ma aw ma ma rafetal lu je suis pas un homme complexé ah, léegi man article 27 lu wax. je suis pas un homme complexé may mun a. mais non munoo ko nekk. wuy ma yow nga am public. mais il y a des gens. ils sont complexés di jéem a défendre seen xalaat li ñuy wax maîtriser. c'est pas mon genre. munoo complexé. wallaahi lazim xaw ma lu article 27 wax. billaahi xam nga lan laa xam. lan laa xam conseil constitutionnel dafa am pouvoir de décision loolu yooyu am ko gën a xam yow muy juriste mooy valider mooy rejeter problème de candidature bi décision Macky Sall moo xam mais ñun dañu am décision bopp et la je te jure n'a pas décidé d'être candidat il va être minoritaire parce que là on a pris notre décision mu neex naqari mais mais mais mais dans l'affaire Benno nag Benno nous nous APR des gens comme nous on n'a jamais discuté avec Benno on a toujours laissé le président parler avec les gens de Benno. mais Farba Farba. c'est le président de Benno ñoom ñoo ko ko fal moom waa Benno moom président mooy moom mooy wax ak waa Benno. mais far ba xam nga lan moo garaaw ci mbir mi. waaw xam nga dafa am ay mbir yu fi jaar 2018 bi président di sàkku deuxième mandat. dafa taxaw mu ne bii mooy dernier mandat ci livre bi Macky Sall hmm. au cœur mu Sénégal au cœur mu hmm. réitéré ko waaw euh, quelques mois euh, je pense bi mu toogee mu teere ko ñu am fi constitution bu bees constitution bi <laughs> article bi la Amat Thiam di wax la nga ah? continuer ah, ah. man pare di wax mu ne euh, le président de la République est élu pour cinq ans nul ne peut faire euh, plus de deux mandats consécutifs donc yow loolu yëpp nga ne yow loolu yëpp da nga koy ignorer yoon ignoré wu ma ko de yéen li ngeen xam mooy yéen li ngeen bëgg non may mun a bul ma wax loolu ma waxoon ignoré wu ma ko dama la leen boobu Macky Sall ma wax c'est pas l'affaire qui a parlé wax ma ban ban leer circulaire nga gis dans ce pays là où l'affaire a bien parlé Macky Sall sera il sera plus notre candidat woon ma ko mais la constitution est au-dessus de Macky Sall. mais raison pour laquelle li ñuy coow nii yëpp di ko coow di wax. laissons conseil constitutionnel tranché. yow sa kaddu ak sama kaddu amu ci valeur. xam nga man damay porter candidature Macky Sall moom laa bëgg di porter sa candidature. est-ce que ça va être validé ça kooku décision conseil constitutionnel. ñi ñu fi valider seen candidat yëpp ñaata nit les élections passées combien de personnes qui ont déposé wala qui ont voulu d'être les candidats rejetés les candidats validés c'est pas le pouvoir. Voilà, d'abord Mansour constitutionnel. dafa am pouvoir de décision de rejeter et de valider. d'accord léegi nag mënu leen mënu leen wax ne ne constitution est protégée par elle yaakaar naa ko ñoom ñooy valider ñoom ñooy rejeter ñoo yor pouvoir boobu. Macky Sall sax amul pouvoir valider sa candidature. léegi honorable si toutefois tey su ñu tegoon benn hypothèse le président Macky Sall wax ni que euh, même yéen waa APR soo leen ko porté ci li nga xamante ne moom mooy. Euh, euh, candidature am ci élection 2024 bii di ñëw moom joxe woon na kàddoom il n'a pas l'intention de se présenter. oui oui oui ça c'est la politique. Mhm. da xëy ne lii duma ko def. circonstance ñëw circonstance ñëw. que def ko. ci analyse politique yi ngay def qui pouvait imaginer Macky Sall ak Abdoulaye dinañ taxali qui pouvait imaginer Idrissa Seck ak Macky Sall dinañ jubóowaat toog di waxtaan ci wàllu su waxee ni que moom présenté wul. ma lépp la am ngeen beneen alternative. non ma ne amul fu mu bind alternative boo koy xam day fel ne yaa ngi xalaat keneen alternative amu fi de ku fi indi alternative ñu wax la loo xam ne delloo la sa bopp mbirum politique dafa nekk lu doy waar. langage am la wax moom la incarné mais dans l'histoire politique bi bi ñu bi ñuy xool ni di ko créer qui pouvait imaginer Khalifa Sall dina taxali ko ak Ousmane Tanor Dieng qui pouvait imaginer Idriss Seck day toog bu jubawaat ak Macky Sall mais ils ont compris que le Sénégal bu soxlee noom dañuy oublier hmm. fàtte seen bopp fàtte seen i intérêt uh-huh. xool l'intérêt du pays pour que réew mi daal mu am. stabilité stabilité dans ce pays loolu dafa am lu import am ah, important. ça n'a rien à voir avec décision Macky Sall. qui n'a pas été écrit ni signé. Mansour sur les positions de de Farba euh, concernant ah. parce que moom c'est le plus grand défenseur euh, de cette troisième candidature. man au-delà de ça man dama jàpp ni Farba Ngom. c'est le numéro 2 actuellement de la ah bon loolu amul nag. non bàyyi rek damay analyse non damay bàyyi ma rek bàyyi rek bàyyi analyse waaw yow xam nga dangay nax nit ñi maanaam ci sa biir yére yu woyof yi ak simplicité man dama gëm ne da am influence. ci lan. non influence bi nga am présentement nii Marième Faye Sall sax amoo. lay lay la la xam nga keroog <laughs> président dafa dem permanence bu APR. génn fa nomination boo xam ne wala siiwal fa nomination boo xam ne par la canal je pense de Seydou Gueye moom fi mu nekk nii moom mooy secrétaire national moom Farba Ngom en charge de l'organisation et de la mobilisation xam nga ndomba tànk boobu ci parti politique c'est de la base au sommet présentement nii man li ma gëm mooy euh, Farba Ngom tey il a la capacité même te loolu yàgg na de nommer des ministres comme de les faire dégommer non li may wax ni mënoo ko weddi. honorable ah, waaw waaw waaw sànni xeer waay. boo paree damay fay. non mais li ma la wax dëgg la. door fayu lañ non mën naa tudd ah, ministre mën naa ne. Ah, yow yaa xam ñu ne ma leen beneen bi man. Euh, foofu parenthèse après nga continuer. waaw allez-y. vous man intellectuel nga. waaw. mais bu ñuy waxte yàlla tax en parlant de nommer on a en face de nous un président de la république influence boo mëntu yor je veux te dire qui est mën nga gis nit di dugg këram di génn mën nga gis nit buy dem fen sax toog fi muy toog beneen côté bi mu ne la kaay toog fii te fekk da lay gérer c'est une personne boo xam ne ni xam lan moo nekk si moom dafa jafe ci àdduna am ci moom influence ba defloo ko lu mu bëgg def amul ci régime bi waxuma la man amul ci régime bi ku am influence ci Macky Sall def loo ko lu mu bugg def amul ci régime bi waxuma la base politique nag waxuma la yor alal waxuma la yor gaalaaj waxuma la yor sëriñ yi capacité yépp noo ko mobiliser ba def loo Macky lu mu bugg da def saa yu defee dara def ko convaincre. léegi beneen bi. saa moom je t'informe comment fonctionne le président man nii sax wallaay même li ma li nga teg nii sama kaw. xam nga sax suñ ko tegee ci sa kaw bu dee du dëgg danga ko war a feeñal. bu dee di dégg di nga maase <laughs> wax nga dégg rek nooyal mm. mais je te dis wallahi mm. lazim am naa ci mu influence mooy lan mooy dem yàlla may na ma ci moom boole na ma ci boppam mm. soxnam aussi ma koy gërëm boole ma ci boppam njabootam boole ma ci boppam gis nga même loo loo xaaral ma wax la rek gis nga loolu boo ko ko amee eh. mooy boole nañ ma seen bopp parce que dañoo xam ne ne man mbirum politique awma lii wala li Macky wax rek loolu aussi daf ci joué boo amee engagement ba mu toll fen la moindre des chose bu ñu jëlul aduna ak li ci biir jox la ñu amoon la reconnaissance da lay motiver ah, ah en pour te ah. dire que président Macky Sall dans le régime ki ngay yaakaar ne ki am na doole ci biir parti bi bu la nee am na ci moom influence defloo li mu bëgg il des histoires xam nga ah. ba euh, man dinaa agsi rek gis nga même nomination bi man dama jàpp ni Farba xam nga mook président bi nga xamante yàgg na depuis xale nomination bi dama ci jàng ni moom Farba Ngom c'est l'un des esprits électoraux yu APR yu gën a fekkoon maanaam ça veut dire wax moom maanaam li ko mën a xamee mooy li ma ko mën a waxee mooy yow ci wàllu euh, ci biir APR xam nga bu baax bu baax ci say ju comme ci say juróomi baaraam li nga xamante ne bii mooy les états major waaw yi nekk biir APR. bu baax te nomination bi da nga ciy jàngee président dafa bëgg a dem xeexi. baax bu baax kay. nomination bi bañ a xeex. dafay bëgg a dem xeexi président nomewul Farba Ngom pour wax au revoir non mu au revoir man loolu laa dafa nommé Farba Ngom pour mu porter. pour dem xeexi candidature troisième kat lu leer laa la wax soxna si. non li may wax loolu moom mënu ko weddi. Mhm. il beneen bi mooy gis nga. xaw ma moom lan la nar ci nomination bu parce que waxuma. non mais man loolu sama. mais man man ma ma ma déggal la ne man. man ak sama yeneen morom ci biir APR. dañoo pare pour xeex. non moom Farba Ngom. duñ ko on l'a pas nommé pour la mobilisation et l'organisation. bu baax a baax pour président tàggoo Sénégal non non pour yaa ngi dégg président. tàggoo ak sénégal yi beneen bi dama am benn anecdote xam naa moom bëggul ma wax ko mais foog ma wax ko. xulul noonu aussi tamit nga nga nga nga leeralal ma rek. il paraît même pale bu fay dugg moom far ba du wut audience. cote la fay duggee cote. cote waaw cote luy cote. maanaam boo ñëwee. dafa am nooy klaxonné double klaxon. lay lay la laaw xaw ma dëgg dëgg. yooyu tudd daal le régime la du dëgg. ah ma wax la rek régime ah, président Macky Sall. Ah, dafa am loo xam ne il faut ma wax la ko pour nga xam parce que boo ko in boo ko interpellé. su ma ci répondre man kenn rek généralisé wu ma ko maa xam ne amul. au palais, là le président habite. ku am pouvoir di dugg foofu nu la neexee di ñëw amul ku dul les gendarmes. même les gendarmes dafa limité yow yaa ngi poste 242. vous avez le pouvoir de rentrer. ou bien l'aide de camp bi fa dëkk ou le gouverneur palais nga xam ne moom moo yor. le secrétaire même général de la présidence. il de la présidence. mais au palais au palais su président joxewul sa tur doo fa egsi qui que ce soit ministre ah. nag laa la wax tous les super ministères billaay wallaay quelle que soit sa puissance waxuma la man am hmm. ah, man du ma ministre mais suñu ba man mii mi ngay wax ne suñu bàyyi sama tur du ma dugg hmm. il faut mu leer hmm. d'accord léegi su ma ko waxee parce que les gens de la présidence may déglu les gendarmes ñu ngi may déglu nit laa koo xam ne maa ngi fi toog tey 7TV demain mën naa fa dem ou après demee mën naa fa dem ku ñu bàyyi turam ci biir palais doo fu dugg. d'accord ah, beneen bi ñaaw loolu moom mu leer. beneen bi mooy quel que soit nag sa relation ak président. Ah. léegi beneen bi toujours. à su dul loolu su dul loolu Mansour. Hmm. on n'a pas un état. Ah. parce que l'état ay cloison la. Hmm. ay secret la. ay confidence la. tu crois que tous les audiences du président du man war na am pouvoir que ne. heure bu ma ñëwee damay dugg damay génn di xool tous les agents du président mais léegi où est l'état hmm. Mansour vas léegi beneen bi li tax sànq ma wax ne c'est le numéro 2 mooy Farba Ngom c'est quelqu'un boo xamante ne bi amul ambition waaw te ci politique pour man dafa plafonné maa la wax loolu loolu laa gëm fi may daanelee loolu yow nag boo doon bu doon listixaar moom gis nga non listixaar laa lu wér laa la dama la listixaar billaahi <laughs> sama ambition de moom moom bu ma ci bàyyi woon day bàyyi loolu su ma ki bàyyi woon day bu ma i bàyyee midi midi une mu bàyyi maa la wax loolu beneen bi fi may daanelee te tamit li nga wax hmm. plafonné naa ci wàllu politique non plafonné na je suis maire dans ma commune en mon deuxième mandat hmm. je trois fois député à l'Assemblée national hmm. loo xam ne la fi ma bokk j'en suis trop fier y a jamais eu de conseil municipal donc man dama doylu par acclamation lañ koy donc euh, léegi et puis dans ce pays j'ai fait partie des meilleurs résultats du Sénégal wala numéro un hmm. le résultat qui est fii 96 98 ah. pour cent parce que waa Agnam laa koy gërëmee parce que ñoom dañ may tànn hmm. mille 2009 bi ñuy dem di xare en élection j'étais le mandataire ma bañ nekk même conseil communauté rurale hmm. c'est moi qui ai la man maa baatu campagne j'ai pas dit ah, deux mille et quelques léegi léegi fi may daanale non yow yow gis kat nga ko <laughs> léegi keroog décembre le 22 décembre à 14h53 y a eu un article très fouillé ah bu Jeune Afrique def ci yow gannaaw bi ñu la toppee pendant presque trois mois yow bi ngay toog ak waa Jeune Afrique di waxtaan ak ñoom ba défendre la thèse du troisième mandat est-ce que fekkul woon président Macky Sall ci intimité mu wax ne moom dafay def troisième mandat. jamais mosul la ko wax. c'est-à-dire que président muy koo xam ne ne li ma la wax rek. Hmm. ko jafe am ci moom influence jafe na ñi ngay gis nii ay trafic d'influence di ko wone mën naa ci lii ci moom mën naa lii ci moom bu ñu toogee ci moom dañuy lox par rapport son loolu dégg naa ko. day da ngay lox <laughs> par rapport son ku muy toog di reetaanal daf koy tànn. Hmm. parce aussi. munoo nekk ci chef d'état hi partout rek ngay reetaan di doon comme quelqu'un koo xam ne amul xel. Hmm. say ñi nga ilif dañ lay ñemee. Hmm. y a des cloisons ci sa biir kër a on a jamais c'est-à-dire amul ku mu musa wax loolu nee naa la man président wax ma ko waxu bañ ma ko wax man je défendrai sax parce que benn bi dama koo xam bëgg réew mi amul noppalu amul lekk et puis encore soyons honnêtes nous les Sénégalais nañu nañu nekk nit ñoo xam ne ni wax dëgg yàlla wax lii nga xam ne ni suñu akulaay taala bi mu fi ñëwee ak léegi 2012 ak tey qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays dans tous les domaines on parle pas de bilan dañuy jël bilan toujours intimité ñenn ñi walla influencer leen on oublie le bilan on enterre le bilan mais quand on parle du bilan ban domaine nga mun a reprocher président Macky ci wàllu liggéey je crois que pour diriger un pays aussi c'est par de l'âge droit mën na am am na lu mu ci wax mais pour diriger un pays li Sénégalais yi xaar yow. mooy nga soppi réew mi saafara jafe-jafe régler le problème des Sénégalais jàppale nit ñi imaginez vous Mansour hmm. vous qui êtes journaliste dafa li fi ne ci biir réew mi man yéen laa koy reproché mooy lan <laughs> li fi xew avant 2012 yëpp am ngeen ko dans vos archives am noo xam ne man aw ma ko parce que du sama métier de 2012 jusqu'à maintenant li ngeen tout ce qui s'est passé c'est devant vous vous devez faire ça cette comparaison da ko war a comparer ba sénégalais yi xam. mais est-ce que en 2012 avant ñuy dugg Macky Sall nekk président problème d'électricité c'est une affaire boo xam ne ne purement sécurité l'électricité ku pur kuy kamaj. c'est devenu de mauvais souvenirs. mais sénégalais yi fay nañ leen ko en deux mille dix neuf. en reconduisant Macky Sall en renouvelant le mandat loolu rek non loolu benn pàcc laa ci wax. je pas parlé d'autre chose et d'autre chose boo ma doon joxal jël fi per course jël sa per cent per ma limal la di début à la fin tous les cent xëy na mën naa koo défendre mais sénégalais laa bëgg ñu défendre parce que man dooyu ma sedd ci Macky Sall li tax may wax les journalistes. Mansour mi mën na wax loo xam ne ni xew na depuis vingt ans parce que c'est son métier c'est d'aller vers l'information creuser vers l'information c'est son métier c'est ton analyse man du son métier ils connaissent un peu histoire Sénégal politique bi lépp ko xam nañ ko man xaw ma ko parce que histoire bi ma xam bokkut ak ñoom avec ça nañu jël loolu comparer ko wax ak sénégalais yi Sénégalais yi tu crois que de faire une bonne communication am na koo mën a convaincre mais am na ñoo xam ne mënoo leen convaincre euh, am na ñoo xam ne mënoo ah, leen convaincre donc moi je crois que da ngeen war a jël loolu wax ak sénégalais yi de 2012 li fi Macky def de deux avant loolu c'est pas nous seulement les politiques qui doivent porter ça parce que réew mi Sénégal ñoo ko bokk ah, vous n'êtes pas à pair du tout vous ne faites pas politique comme man mais vous êtes sénégalais luy njëriñ sénégalais askanu sénégalais gis ci seen ah, bopp loolu bëgg nga ko euh,